asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalibe yi mbokki jullit yi naafila bi ñeenti raakan la raakan bu ne fatiha benn yoon xaaral na sax benn yoon xul xul laa aat ñetti yoon yàlla na sàmm defal jàmm barkeb koor bi